بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere bi di al usulu salaasa tey ñoo ngi jël al masalatu rabiatu muy darsu fukkeel waaye tombab ñeenteel dars bi di jàngale as-sabru alal aza fiihi waxoon na ne nit war naa xam ñeenti mbir ñeenti mbir yooyu waxoon na leen al ilmu waxoon na leen ad daawatu tey mu ne asabru muñ alal aza ci lor yi fii ku jàng day am xam-xam soo amee xam-xam dafa war a woote sooy woote dinañ la lor suñ la loree da ngaa war a muñ mooy asabru alal aza fii lor yi nga xam ne dinañ la ko lor ci woote bi ngay woon nit ñi kaay leen ngeen jaamu yàlla xanaa xamoo yeete sax yeete julli fajar sax dañ la ciy lor ndax dañ lay ciipatu ñenn ñi di la xulli ay bët yàlla na nga dee ñenn ñi di diis diislu ñenn ñi buñ la wuyu sax boo leen di fëgg buñ la wuyu duñu nangoo wuyu lu nekk a ngi ci biir moo tax da ngay muñ yow mi nga xam ne yow yaa jàng xam di woote foog nga muñ waaw foog nga muñ moo tax mu ne asabru na nga muñ alal aza ci lor yi fii yi ci nekk mu ne maalumun lu ñu xam la anna man da annaas képp kuy woo nit ñi wa amara bil maaruf muy dégle lu baax wa naha anil munkar fa innahu sa yataarradu lil aza min al ashrar wallahi di nga am ay lor ñu bon ñi dinañ la lor danañ la xërëm danañ la liggéey danañ la jéem a rey danañ la jéem a gaañ danañ la tëkku danañ la saaga danañ la xas danañ la tiital danañ la xoqatal waaye dara man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla rek yàlla doy la te yàlla waxoon na fala taxaafuhum wa xaafuuni bu leen leen ragal na ngeen ma ragal waaye dafa am sart de looy sart bi in kuntum muminin bu dee gëm ngeen yàlla innama zalikum shaytan yuxawifu awliyaahu seytaane nag mooy jël ay gaam gaayam yooyu ñooy ñëw di la jéem a tiital waaye yàlla nee na bu leen ragal amuñu doole seytaane gi gaayam yëpp man yàlla maa leen mën maa leen ëpp doole kon nag foog ki am xam-xam waxuma ki am xam-xam noppi de ki am xam-xam di jëfe xam-xamam woote di woo nit ñi ci xam-xamam boobu foog mu muñ ndax danañ ko lor waaw kii digle lu baax di tere lu bon képp koo xam ne yaa ngi digle lu baax di tere bon laa bu dañu lor la foog ñu lor la waaw dañ la xulli ay bët ñenn ñi nañ la ñaanal nga dee ñenn ñi dinañ ñaanal nga accident ñenn ñi dinañ la sib bañ la daf la ay noon waaw waaye dara li yàlla wax nañ ko def digle ko rek digle ko de bu la kenn deltuloo ginnaaw waaw bu la kenn arrière loo ndax yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak yàlla war nga ragal waaw tey boo doon dox ci mbedd yi rek nga ànd ak Balla Gaye mu lay garder est-ce que da ngay ragal la wax doo faale kenn da nga naan ah man day ku ma laal xam doo ngay wax ah léegi nag ku ànd ak yàlla nag kon nag mbir yaa ngoog laa budda fa innahu sa yataarradu lil aza min al ashrar il faut dina am ay lor yu bon yu jóge ci ñu bon ñi ñëw ci moom li anna kasiran min an naas ndax lu bëri ci nit ñi laa yuriduna al xayra bëgguñu lu baax li bëri ci nit ñi bëgguñu lu baax ëpp ci nit ñi bëgguñu lu baax lu bon rek lañ bëgg loolu moo tax yow boo ñëwee bëgg indi lu baax da ngay gis di commencé di la xool ay bët waaw commencé di di di leen digle lu baax di leen yee di leen julli kaay leen ñu jàng nan def lu baax nanu ragal yàlla nanu def lii nga gis bëgguñu ko ñoom lan lañ bëgg bal yuriduna shahwaat ay bànneex lañ bëgg ay bànneex seen bànneexu bakkan yu bon rek lañ bëgg waaw boo ñëwee ci benn xew nga ne ah xew bi tey kenn du fi musique nga dégg ñu ñëw ne waaw yow baabu ndaw yow lu tax sa xew bi musique goo ko ne ah kii moo tax ay moo yow de yow ah commencé waaw commencé lu tax yéen def leen nii nga ne ah ñu commencé dama nga fekk benn ngénte nga ne abal leen ma micro bi ma waaraate waaye ñaan waaye bu ñu ray waay yow waaye bu ñu tànqal waay waaye may ñu nee waay yow waaye yow jàllal nee waay waaye xoolal góos waay yooyu da lañ lay wax kon nag na ngeen xam ne ku jàng jëfe di woote foog ñu lor la foog ñu lor la ñan ñoo lay lor nit ñu bon ñi ñi nga xam ne laa yuriduna al xayra bëgguñu lu baax bal yuriduna charra lu bon rek la ñu bëgg as sahwaat wal muharramaat lu araam lañ bëgg seen bànneex lañ bëgg mu ne wala wal ahwa il baatil ak seen bànneex yu caaxaan yu bon yooyu loolu lañ bëgg a samp loolu moo tax yow miy woote naan yàlla nee na yonent bi nee na nanu defaru nanu wax lu baax nañu jëf lu baax nañu dem fu baax dañ lay indil ay jafe-jafe fa iza jaa man yaduuhum ila ila allah su fekkee nit ñëw na ci ñoom di leen woo pour ñu jëm ci yàlla wa yarudduhum ani shahwaat mu leen di tere lu bon li fala budda an yakuna minhum raddu fiilin di nga gis ñoom ñu lay delloo ala lay delloo raddu fiil ñu lay delloo lan delloo yu bon au lieu ñu yow ñoom ñu xool li nga leen di wax ak fi nga leen bëgg a jëme ak li nga leen bëgg a jàngal ñu xool lan moo baax déedéet ñoom daal seen yéen nekku ci maadaama yow li nga leen di tere ah film yi ngi leen di tere seetaan film yu bon yi théâtre yi ngi leen di tere seetaan yu bon yi da ngay gis ñuy ñuulal kanam wala ñu seet waaw waaw kii lu tax mu ñuy tere lii waaw nañ xool ndax lii baax na ndax lii diina wax na ko ndax lii yàlla nangu na ko ndax lii yonante nangu na ko déedéet mais dañuy ñëw rek di ñuulal kanam ak di la xulli ay bët nga xam ne donc da lay leer na yaa ngi jàng ci kanam yi ak bët yi yàlla nga dee loolu nga ciy jàng wala nga leen di yee fajar jóg leen julli ku ci yow ba ni ni xool la rek sigi xool la looy gis ci kanam gi mooy yàlla nga dee waaye dara yàlla moom day guddal sa fan ndax yow lu baax ngay def yàlla nga àndal te ku ànd ak yàlla waroo ragal li gën a garaaw ci àdduna mooy nga ànd ak yàlla di ragal est-ce que da ngaa yeb yàlla yéena wax léegi ko ànd ak Balla Gaye ak Bombardier waroo ragal nga ànd ak Bombardier ak Balla Gaye ak Tyson ak Yékini nga nekk ci digg bi ñu wër la ñoom ñeent war ngaa ragal lu tax doo ragal ndax da nga naan ay borom doole ñoo ma wër ñooñu ak yàlla kopp doole allahu akbar kon nag wan ak yàlla waroo ragal bu ragal kanam yi bu ragal mer yi bul bañ mer yi li yàlla wax rek li yàlla wax rek nit ñi noppalu am jaam mbokki jullit yi fal waajib war na ala man yad'u ila allah képp kuy woote ci yàlla lii moo la war woote goo xam ne nag li nga ci bëgg wa yurid wajha allah li nga bëgg mooy yàlla rek nga bëgg mu kontaan kon li la war mooy bu njëkk an yasbira muñal alal aza ci lor yi ku la saaga bul fayu loo me- bind message bu bon bul ko ko delloo ku la xas bul fayu ku la wax wax ju bon bul ko ko delloo idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa kaannahu waliyun hamim wa ma yulaqaaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaaha illa zu hazin azim yàlla nee na ku lay def lu bon def ko lu baax waaw da ngay nekk ak benn nit mu lay wax lu bon yow saa yoo amee xaalis rek dindil ko ci yenn saa yi sax nga ne ko nan dem nan dem ngéwél bu ñëwee nga ne ko toogal mu toog nga ni waa ji defaral ko pare nga jaar yóbbu ko bitig ba jëndal ko boisson ba pare nga may ko paas te pourtant moom mu ngi lay def lu bon de waaye yow nga koy def lu baax doomu aadama yi war nañoo yor jikko garab jikko garab garab xam ngeen garab ban jikko la yor xam nga ko xam nga jikko garab ban jikko la yor day joxe ngelaw da joxe ngelaw garab ban jikko la yor mu koy sànni xel mu lay sànni ay xel loolu mooy jikkoom ñun ñëpp dañoo war a yor jikko garab da ngay ñëw nga fekk garab mango gi mu ngi taxaw nga jël ngandum xeer ni ko ko vip ba xob yi deñ moom day saan ay doomam la lay sànni nga jël raxas lekk allah nga ñëw ci banaana bi dur ko jaasi bu daal lay may doom nga lekk nga ñëw ci garab orange bi dur ko xeer bu daal lay sànni ay orange nga lekk loolu mooy jikko garab doomu aadama dafa war a jik dama da nga war a am jikko lu baax ku lay def lu bon nga def ko lu baax moo tax yàlla nee na dee leen fayonte lu baax idfa billati hiya ahsan ku lay def lu bon rek def ko lu baax loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam daan def moo tax ñu bëri mu tuubloo leen ñu ko doon def lu bon yëpp lu baax la leen def lu baax la leen fay mu ne kon kii woote ci yoonu yàlla te nam mu yiw na muñ wa an yastamirra fi daawa waaye nag na continuer aussi ci daawa bu muy daawa bul ñëw nit ñi mer rek nga arrêté naan démb wax naa gars yi dañoo mer waaw comme man nag nit ñi dañuy mer man damay noppi ah nañu mer ku tax ngay wax kon continuer da nga continuer ci sa daawa ila allah ndax sa royukaay wa qudwatuhu fi zalika ar rusul sa royukaay ñi ngay toppandoo mooy yonent yi te yonent yi dañoo amoon ay lor dañ leen a loroon alayhimu salaatu wassalaam ki ci gën ci ñoom mooy muhammad alayhi salaatu wassalaam moom la ñu gën a lor maada laqiya min annas moom yonent boobu lan la dal ci nit ñi lan lan la daj ci nit ñi lan la daj est-ce que xam ngeen lu yonent bi daj wa kam laqiya min al aza bil qawli wal fi'li ñaata yoon lañ ko def ay jëf yu bon ak ay wax yu bon ñaata loolu ñu def yonent bi duñ ko def kenn duñ ko wax kenn yonent bi wax nañu ne ko saahir jabarkat nga rek dimbali nu ñene tëlëfale ne ne ne du jabarkat de ñu ne la ñu ne kazaab fenkat la ne ñe ñi tëlëfale ne lan la ñu ne kii saahir kazaab ñu ne déedéet du ñaar yëpp ñu ne lan la ñu ne majnuun dafa dof gis nga de allahu akbar waaye xoolal yonent bi nekk fanaan man dofuma de man du ma fenkat de man du ma jabarkat de déedéet wallahi man du ma déedéet du fa nekk di weddi yàlla moo koy weddil subhanahu wa taala moo tax booy booy nekk di daawa xam nga nu mu war a mel booy daawa xam nga nu mu war a mel comme gëléem gu yenu ay bagage di dem mu romb xaj xaj bi di ko mboobu est-ce que gëléem gi day taxaw yebbi bagage yi xeexe xaj bi ba pare yëkkati ko demaat oto bu yenu bagage di daw di dem yoonam nekk ci tali bi benn xaj di ko dàqi ndax oto bi day feree ne dàq xaj bi moom ñëwi mu doog a dawaat ah nu muy def oto bi day continuer dem yoonu xaj bi daw daw daw ba sonn du ko jàpp daal di dellu ñibbi yow tamit da ngay daawa ñiy wax di wax ngay daawa waaye doo fi daawa pare taxaw di tontu waaw. wala fi nee nañ ku yenu du xuloo yow da ngaa yenu dama kon noonu la ñuy daawaa kuy daawa day continuer ndax yonent yi lay toppandoo te yonent bi lor nañ ko wax nañ ko saahir njabarkat nga. ñee ne ko kazaab ñi ne ko majnun wa qaalu fihi min al aqwali allati zakaraha allahu fi alquran wax nañ ko wax yoo xam ne yàlla yëpp nettali nañu ko ci alquran ñu ngi koy jàng guddeeg bëccëg lor yooyu ñu ngi kiy teg sunu bët dóor nañ ko ay xeer ba tànk yi di sotti deret sotti nañ ko mbàqu gëléem muy julli ñu teg ko mbàqu gëléem fekk mu ngi sujjoot ci wetu kaaba gi gaa yi tëkku nañ ko guddi di ko rey jox ay xale yu góor jaasi ñu fanaan buntu këram ba yàlla ne ko génnal bu fi fanaan tey gàddaayam posone nañ ko tuumaal nañ ko tuumaal jawaram yi rey saxaabaam yi te terewul ndax taxaw na ndax bàyyi na lim doon def allahu akbar keroog ba ko bàyyi taxam woowee abu taalib ne ko dama bëgg nga bàyyi li ngay wax bàyyil woote bi bàyyil woote bi yow muhammad sonal nga ma man léegi dama màgget mu ne ko wallahi yaa am law wada'u sams ala yamini wal qamar ala yasiri ala hada hadha al amr baay bu ngeen jëloon jant bi teg sama loxo ndeyjoor ngeen jël jant bi weer bi teg sama loxo càmmoñ pour ma bàyyi woote bi duma ko def lu dul yàlla def li gën lu nekk lañ ko def sallallahu alayhi wa sallam ca Uhud dóor nañ ko ba damm bëñam xuri ay uumam waaw ñu daal di toj jël bi muy naaj casque bi daal di tëj ci bopp bi allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam wa waqaa fi lxufra gasal nañ ko kamb piège mu jóg guddi di julli ji gars yi gasal ko kamb mu pëtëk ci wa huwa nabiyullah te moom mooy yonent bi li yëpp def nañ ko ko ndax yow def nañ la ko ndax yow def nañ la ko yow nag yow nag yow nag yow nag yow nag ndax yéen ñi yëpp def nañ leen ko kenn deful leen ko xam nga lu tax defuñu leen ko xam nga lu tax defuñu la ko xam nga lu tax defuñu la ko lu tax woote wu woote wu très bien xam ndax defuñu la ko lu tax woote wu woote wu man def nañ ma ko man man mii def nañ ma ko man
waaw man waaw tiire nañ ma pistolet génne nañ ma ci jàkk ji ma doon jullee dàq nañ ma école bi ma doon jàngale waaw xeex naa ci koñ bi ci jàkk ji ci conférence yi ci dëkk yi ci gox yi sama yoon bi passé Casamance rek xeex naa fa parce que damaa woote yéen wootewu leen nañu essayé ngeen commencé woote ngeen xool ngeen commencé woo seen seen morom yi ku nekk woote ngeen xool balaa ñu amaat das di nga ñëw fii nga nettali lu ñu la def allahu akbar acca nañ ko essayé bismillah bismillah bismillah kan moo pare pour woote allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allah yéen ña pare ngeen pour nekk ay wootekat pare ngeen pour wooteel yonent bi ak yàlla bi iznillah loolu nag ñu wax nii waxuñu ko pour yëkkati loxo mu neex leen waaye malaaka yi bind nañ ko ku ko wax ne man damay woote woote woo malaaka yi bind nañ yow yaa ko waxoon mbir mi jeex na bind nañ ko bind nañ ko ba pare waaw incha allah bismillah mbokk jullit yi yonent bi seen suñu royukaay te lii yëpp daal na ko fa kasaru rubaayatahu damm nañ ay oomam toj jëbi tabbal ko ci kàmb sallallahu alayhi wa sallam kullu haza azan fi daawa lii yëpp ay lor la yoo xam ne yonent bi daj na ko ci woote bi waaye lakinnahu sabara wa tahammala muñ na mu yenu affaire bi gars yi di ko lor mu yenu ko ndeysaan gars yi dóor nañ ko ba yaram bi naaj dóor koy xeer benn malaaka ñëw ne ko bàyyil ma jël montagne bi dóor ko ci kaw ñi ñu dee mu ne ko déedéet bàyyi leen ñu dund ñoom buñ ma gëmul yàlla dina génne ci ñoom njaboot goo xam ne dinañ ma gëm sallallahu alayhi wa sallam keroog bu ñu ko dóoree xeer yi deret tànk yi di nàcc mu ngi naan saxaaba bi mu àndaloon sama deret bu mu laal suuf de fexeel nga fomp ko deret ji bu mu laal suuf su laalee suuf rek asamaan si lay wàcc waaw fu ñu dóoree yonent bi xas ko saaga ko tam ko dëmm posone ko ñun ñii kenn ñu kenn musuñu faa jam bantu bale xam nga ne kon ñu ñoo nekkul ci dëgg kon nekkuñu ci dëgg fu ñu dóoree yonent bi raye fa Umar rey Ousmane rey Ali posone Assane rey Ousseyne ñu dóor ñoom Ammar dóor ñoom Bilal ñun kenn jamuñu bantu bale nañ xoolaat suñu bopp rey Sumayya ci jigéen ñi Sumayya moom la njëkk a rey jigéen ji ci lislaam Sumayya waaw nag ñu seetaat suñu bopp nañ xoolaat suñu bopp nañ xoolaat ndax ñun dëgg-dëgg am nañ imaan ndax dëgg-dëgg jaar nañ ci yoonu yonent bi yonent bi ak saxaaba yi amul lu ñu dajul ak yonent yu njëkk ya Ibrahim yeew nañ ko ba mu ne ngodd ñu sànni ko ci safara Yusuf ñu tëmbal ko ci teen Moussa Firawna génne ko bu korey topp ko ci géej gi Yaxya ñu rey ko ñu rey Zakariya Yaquba jooy ba gumba ñun lan moo ñu jot ñun lan lañ def waaw ku nekk sax fii balaa ngay dem jàkk ñu jël jaasi ak paak waaw ak kuuru roof nga doog a dem jàkk mbokk yi affaire bi wolof yi dafa am lu ñuy wax ñu ne ku bëgg a akara day ñeme kaani affaire bi du ay waxu kese de affaire bi jëf la waaw boo gëmee yàlla dafa am lu muy saf sa xol dafa am looy yëg yàlla moom dalay animé yàlla moo lay jaral lu nekk waaw yàlla dalay jaral lu nekk nga def ay sacrifice ngir yàlla ay gëm yàlla goo xam ne gëm naa yàlla kese gëm naa yàlla gëm naa yàlla gëm naa yàlla billaay gëm naa yàlla loolu loolu du ngëm ngëm gu ñuy waat loolu gars yi naan mbasin billaay balaa ñuy gëm na mbasin la nga ne billaay mbasin la loolu du mbasin yonente alayhi salaatu wasalaam lor nañ ko mu yenu yoror yi wa huwa afdalul xalq te moo gën ci mbindeefi alayhi salaatu wasalaam fala budda lillazi yaqumu bihi bi hadihi daawa an yataarrada li amul kenn ku mun a jóg ne damay woote te doo am problème soo amul problème rek woote woo am na yéen amu leen problème parce que woote wu leen essayé leen woote essayé leen ngeen xool da ngeen gis problème yi balaa suur ay woote wu leen mu tax ci jàmm ngeen nekk yéen seen bopp ngeen tal lekk naan tëdd nelaw yow dem duus pare ci pare ci waaye bu ngeen doon daawa seen yaram bi daawa di ci daw seen yaram bi fiir fiiraange lislaam di ci daw ngeen bëgg yàlla bëgg yonent bi kon bu ngeen tëddee du ngeen nelaw mun leen woo ngeen wuyu kon yéenay jóg jaar ci mbedd yi di woo nit ñi di leen yóbbu ci yàlla benn paa dañ ko ne demal nga nga daawa ji ñu ne ko fan laay daaw mu ne fan laay daawa ji ñu ne ko demal pompier xam ngeen pompier mooy foofu oto yi daan nekk garage bu njëkk ba ku bëgg a tukki foofu ngay dem jël oto mu yóbbu la fi nga bëgg a dem. soo demee ci garage boobu foo bëgg a dem rek ci Sénégal di nga fa fekk oto bu fay dem nga jël ko dem paa bi daal di fay ñëw rek taxaw mu dégg oto bi naan Thiès bee naan Louga bi naan Touba bi naan Ndar yii naan Fuuta yii naan Louga yii naan yii naan yii naan ku nekk di woote. paa bi tax mu caa daan ne aljanna aljanna ana ñu bëgg a dem aljanna ñu ne waaw yow góor gi looy wax nii mu ne ah seen oto yi fu ñu jëm ñu ne waaw ñu ne mu ne man tam sama oto aljanna la jëm aljanna ku dugg ma yóbbu ko kër gaa yi taxaw di ko déglu mu commencé di leen daawa di leen daawa di leen daawa ba garage bi yëpp tuub topp ko bàyyiwu leen lu dul gaa yi tabax benn jàkk ci ja ci garage bi allahu akbar ah ah noonu la waaw kooku dafa gëm daawa ndeysaan dafa gëm daawa am na koo xam ne benn mandikat la indi dugal ko ci jàkka ji ne ko kan julli ji mandikat bi dugg mu yóbbu ko ci toilette bi mandikat bi defaru jàpp ñëw gars yi di ko dóor di ko bëgg a dóor ne du dugg ci jàkka ji dafa màndi élimaan bi ne bàyyi leen ko buñ jullee ba pare ñu wax ak moom élimaan bi kabbar ruko sujjoot ñëpp di sujjoot di jóg di dem di- moom kese mu sujjoot fi mu sujjoot gaa yi julli ba pare imaam bi ne ñu ne kii de dafa sujjoot bi depuis sujjoot bu njëkk ba dafa sujjoot si jiwul imaam bi ne ah seet leen ko ñu xool ko fekk waa ji dee waaw akbar dafa naan sàngara fee mu ñëw fii sujjoot dee fan la dee ci biir jàkk nan la dee dafa sujjoot allahu akbar xoolal kook bu ñu ko bàyyi woon bu ñu ko bàyyi woon noonu ak mànd gi fan lay deewee ci baar bi waaye ci biir jàkka yàlla ji lañ ko indi ah kon foog ñu indi nit ñi foog ñu indi nit ñi nit ñi foog ñu jëli leen kenn du toog di xaar nit ñi sol leen seen dàll jëli leen jëli leen nit ñi ngeen yóbbu leen ci yàlla yonent bi noonu la defoon dafa soloon dàllam jëli nit ñi yonent yëpp dañoo soloon seen dàll yow mi bëgg a roy yonent bi solal sa dàll jëlil nit ñi lor nañ ko lakinnahu alayhi salaam sabara yonent bi muñ na kon nag yow it fa alayka bi sabri muñal maadaama annahu ala xaq feeg yaa ngi nekk ci dëgg muñal fa innahu yasbir wa yatahammal fa huwa fi sabilillah muñal yanu lor yi ndax yaa ngi ci yoonu yàlla waaw benn waaye dañ ko ne demal nga dugg nga dugg ci kër yi nga fëgg ku f- ku ubbi rek ne ko dañ koo soxla ci jàkka ji mu jaar ci mbedd yi fëgg këng-këng ku ubbi lan la dañ laa soxla ci jàkk ji xam xam mu ne waa baal ma ax nga tëj mu fëgg beneen bunt kër këng-këng nga ubbi dañ laa soxla ci jàkk ji waaw maa ngi ñëw tëj mu bàyyi la fëgg beneen bunt kër benn waaye ubbi lan la yow dañ laa soxla ci jàkk ji eh xoolal gis nga man duma sama roman mu ne ko ah man kay xam naa ne doo sama morom waaye waa jàkka jéem a yónni ne dañ laa soxla rek mu sone ko tëf waa ji daal di këpp sujjóot sujjóot sujjóot ñi mu àndaloon naan ko bul ko ñaanal lu bon bul ko ñaanal lu bon de waa ji sujjóot rek ki ko dóor taxaw di xaar waa ji sujjóot rek waa ji di sujjóot rek ñi mu àndaloon naan ko yaa axi bul ko ñaan lu bon bul ko ñaanal lu bon bul ko ñaanal lu bon waa ji si jot rek ba ci yàgg rek ki ko dóor commencé jooy naan ko bul ma ñaanal lu bon bul ma ñaanal lu bon yaa ngi doon boo ko defee ndeysaan daal di siggi mu ne ko mbokk loo ma doon ñaanal mu ne ko bii nekk sa mujjantalu dóor booy dóor nit dama doon ñaan yàlla bootoo dóorati nit ci kaw suuf mu ne ko lan lañ may doyee waa jàkka ji mu ne ñëwal wuyu mu dem jàkka ji waa jooju noonu la defaroo ba baax keroog la gëj a dóor nit dóoram boobu mooy dóor bu mujj bu mu dóor nit waaw gis nga ñoo ñëpp dal nañ loolu ndax bëgg yàlla baal leen ndax bëgg ñoo am tiyaaba ñun ñoo ngi nii kenn ci ñun mu mu mus- musul indi nit ci sunna mus ngaa indi nit ci sunna ñaata nit nga indi ñaata nit nga indi yow ñaata nit nga indi yow yow yow yow yow yow yéen ñooñu wala mun mus bi ngeen juddoo ba léegi musu leen indi kenn ci sunna parce que daawu leen allahu akbar allahu akbar mbokk yi xanaa bëggu leen ëllëg yowmal qiyaam su yonent bi jiitoo gaa yi topp ko mu fëgg buntu aljanna Ridwaan ne ko kokkan la mu ne ko Muhammad ñu ubbi yonent bi taxaw ci bunt bi di xool ñi ko doon wooteel allahu akbar ana gaa yi ñi ko doon wooteel naan nii ci mbooloo mi ba gis la ne la axi bàyyi leen kii xajal leen ko yoon bi xajal leen ko yoon bi mu dugg mu jàll nga ñëw daal di jàll dugg biir aljanna xanaa bëgg leen loolu te loolu day am yowmal xiyaam de ñu doon liggéeyal yàlla ak yonent yonent bi mooy taxaw xool leen ana gars yi xajaleen ko xajaleen xajaleen ko gars yi puus nga jàll dugg xanaa bu leen bokk ci caravane boobu bu leen bokk ci mbooloo moom mbokk yi kon nanu daawa jàng nan alhamdulillah xam nan ñoo ngi góorgóorlu di jëfe waaye bi des mooy ñu woote foog ñu woote ad daawatu ilayhi wa sabru alal aza foog ñu woote asabru alal aza fiihi asabru alal aza fiihi suñu woote foog ñu muñ lor yu ñuy lor foog ñu muñ lor yu ñuy lor li tax nag loru ñu ñu mooy dañoo woote wut kon yàlla nu yàlla def ay wootekat asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.